monsieur le ministre des finances monsieur le ministre du travail je suis collaborateur, collaborateurs collègue député trois minutes je dafa bariwul monsieur le ministre man dama Russe, dama le maire de Tivaouane fi ci pupitre bi de tout récemment même pas une semaine gep ci ci taxaw di wax ay ay ay ay gis nga dafa am loo xam ni gis nga man fii ma fi taxawee Tivaouane ma ñor ñoom laay waxal lu ma leen war a waxal mais dafa am loo xam ni pendant trois ans ñu topp ci benn stade mais xanaa war nga koo mën a dimbali defaral ko stade bi stade bi jaañ si mbeng moo leen may gazon yi waa xanaa yaa xayti ku def ku kun ku am mandat wu cinq ans defagum nga deux ans war ngaa mën a def loo xam ni ca Tivaouane loo xam ni lu nit ñi lii jóob si moo ko fi def mais dara defu ko fa te li may wax nii du waxu caaxaan. xam nga xam nga Tiwaawan na leen def marché Tiwaawan ñëw bëgg yoon bi leer mu mu mu bopp bi maire yëpp dugal leen ci biir marché ba wàcc leen ci naaj bi ñuy naaj bi di leen sonal est-ce que loolu am na sens pour rek ku romb ni noo tali bi leer na te fekk fa leen sànni moo gën a bon sax fa leen jëlee loolu rafetul ñun nag Tiwaawan képp ku taxaw di def loo xam bi naka sudul noonu lu man ci combattre la dinañ ko def mais defuñu ko ngir lenn. defuñu ko ngir leen beneen bi ci des ngañ juuf kuul mbayeen est-ce que mas ngaa gis commune boo xam ni un mètre goudron amu ko loolu Tivaouane la am commune boo xam ni commune bi yëpp soo ko wëree amul am mètre goudron ñetti commune yooyu fan yi dem naa fi Fouta xaw ma nu koy waxee sax bandéraabe mi moom a du Dia moo tax man ma xam nan la ñuy nuyoo ci ci ci alpulaar mais wër nañ Fouta mais fouta man buma gisé ay député taxaw fi deku fouta di tag ñen ñi man daf may jaaxal parce que fouta ay néegi ban ñofa am ba légui ay néegi ban ñofa am ba légui no xam daf ma jaaxal non mo am dé non dama bëgg ñu defaral leen fouta rek moo tax may wax lool benen bi ci dess moy meewaan meewaan fani Amadou Ba dem na fa Amadou Ba dem na meewaan lancer travaux tali tali mewan. waye y'a xayti daya jóob nga un la ak De dëkk yu nga defar tali pour mu jëm nga te population ba fa nek mëno defar ko un kilomètre de route bu jëm rafet benen bi ci des moy bo démé dama fa dem ñom population ba ñoo defar hôpital ba mu pare. ci merci alaikum wa rahmatullah Nous sommes les ministres collaborateurs C'est ce qui est fait mais ce du du problème Le problème qui ci mise en œuvre la est-ce que a un impact la population bi nañu nous jaar Dodel président le prochain président de la République du Sénégal Diar de bu naan Sendou dans le département de Matam Diar nañu itam ci de bu naan Jegem ci zone bu naan Jegem mooy Caajaay mooy Seeseen moom mooy itam Njagañaaw jaar nañu dans le Kajor, diar nañu fu mel ni Mbul Akel, ak Kel parce que ay député nañ dañuy dem fu ne beneen bi itam diar nañu fañ leen waxoon zone Dior ten Babel ba. jilaa jaar na lu itam ci fu naan zone lébu muy gàndigaal muy zone yi nga xamante ne mooy géerow ak solo xasab ak yu demee noonu waaye li ñu constaté budget ak impact mooy sénégalais yi naanuñu sénégale yi naanuñu jur gi naanul beneen bi itam mooy courant amul ci zone yooyu yoon amu fa yoon amul ci zone yooyu beneen bi itam paj amu fa li leen ci population jur jox baykat yi ndox aussi département de dans nan ko def région bu ngeen ko deful région ci deux mois yi Aliou Mamadou bu dina ko est un don de la mer waaye rey nañu pêche bi rey département bi parce que mool yi amatuñu essence amatuñu jën amatuñu dem nañ jigéen ni 1000 et quelques personnes ci fini ñuy amatuñu produit ndax ni ñu rayé géej gi ak licence de pêche xalé xale yaa ngi dem ci mbëkk mi benen bi itam monsieur le président kii monsieur le ministre géro 10000 habitants plus de 10000 habitants benn forage nañu am mënul leen dundal gandigal ndox ma baxul dañuy jënd ndox amuñu sem amuñu ay yoon loolu dañ cee war a taxaw beneen bi itam monsieur le ministre euh, zone saafi amuñu yoon cour saafi boo demee commune ñu jas ñu ngay nangu seeni suuf pôle dagga xol fa boo demee wakaam gii aéroport bi ñu ngi koy nangu ci seeni ci seeni loxo boo demee ngor ñu ngi nangu seen suuf te dañ cee bëgg def lycée doon leen a war a jox seen suuf ñu tabax ci lycée parce que loolu nu ñu bëgg sénégalais yi sonn nañu budget bi amul benn impact ci dundu Sénégalais yi salaamaaleykum wa rahmatullah